e pique Lima Língua e pique A joga é taca da fit Joga é taca da fit Agora que é amo no tite amul lu muy tiit ay joge dagal sa xiir defar sa fiit dagal sa fiit ak deux cent vingt et un da koy teg yow seenu gawar gi rek mooy chef nga ndar yaaba yow nga fay fekk ak yeneen gaa yow yi ko seek teewal nga seetaan course dafay neex non violence doo fi gis dama xeex am na reporteru doom bay peex ak sañca ba naaes di ko booy teex Moussa bu ngoonee gawar la Boubacar sàngal kam gawar la Issa bu baawoo gawar la yow bigi sax gawar la e eh, fataw mu am bu Arafat wala xaalis soo bu maam loo bakka daal du maye sar Ali Baba borom commando écrit wu ren jël na pee baawa ñëw du négocier écrit ci day songu see yow ñu si dees na négocier wil da boo day rablu leer ziar am bu awa sayer fallu Medina du may xeer yàlla ñu yàlla keer boy lii mooy course hippique li mooy course hippique. waa Zoka yow e takka sa fiit. Zoka e takka sa fiit. gawar gi amul booy lu ñuy tiit mais. amul lu ñuy tiit. waa Zoka yow e takka sa xiir defar sa fiit. ey lii mooy course hippique. Língua com سيدي الجوكة يتاكل زفيت جوكة يتاكل زفيت اجارجي عملوا يتيت عملوا يتيت الجوكة يتاكل زخيت دفور زفيت تاكل زفيت ليوا كرسي بيك ماما رجاية وتاكل زفيت والجوكة يتاكل زفيت فالو جوب بوي تاكل زفيت جارجي عمل بوي لو يتيت ميجين بوي تاكل زفيت والجوكة يتاكل زخيت امين كده يتاكل زفيت مان ليوا كرسي بيك allah Cheikh Wade jóg nañu Cheikh Wade yi la amateur yëpp yàkkamti woon ñoom ñëpp jógandoo nañu nekk ngi sax fatim laaw lat fatim laaw lat fatim laaw defatina ma ni di dawee laaw lat fatim troisième position Arafat wante ki nga xamante ni mooy Mubarak mu ngi xartu bëgg a dem booy bi ni ko teel na wante Zarak moo jiital fasi ak nga xamante ni mooy El Capo wante laaw moo génn ko day jaab rek deuxième position Lat Fatim moom it day jaab rek tourné fi nga xamante ni mooy tournal mais Aida Mbaye borom Arafat Moubarak ño tolo troisième position ak quatrième position nous sommes dañuy jaab rek gaa yi dess nak nag ràmmum lañ def def njitum golo def Lat Fatim Anta en deuxième position Law en troisième position Arafat en quatrième position Moubarak Tout mi ngi non di mi

fataaya waaye ku nekk yaa ngi kenn xamul fu ndam li jëm ay rawante tey bi Arafat ñëw na laa ilaha illallah tel naa dëggal boppam fas yaa ngi nii di romb dije neex soos lu mu animé wul neexul laa ilaha illallah rawante bi foofu setul wante olof Ndiaye nee na way wi këpp gaal kenn du ko way ci tefes romb nañu dije neex soos borom son yi lu mu tegul rek neexul wante ba léegi nga xamante ni moo génn moom mooy Arafat doomu soleil de minuit la John Kwat Sadezuel nos zones danseurs Moubarak King Sarleman Nouriev nos zones danseurs troisième position nga xamante ni moo fa ne mooy Law ci botin Foblis White Foblis danseur nos zones danseurs vainqueur grand prix ngi toog cinquième position ànd ak accident dawaloon nanu ñoom ñëpp dawaloon nanu dawal nañu buraax mu ngi daw lu bari wante Moubarak jàpp na Arafat Moubarak génn na King Charlemagne nu réew na zone danseur buraax a ngi daw lu bari Arafat a ngi daw lu bari Azida a ngi daw lu bari wante Tawfeex moom it mu ngi daw lu bari wante ba nga xamante ni moom moo génn moom mooy façon noonu nga xamante ni moom mooy façon ah buraax génn na buraax génn na loof an los darsa sir la xee nit rif na ba baan na la sama xel dem na si wante fas wi nii Diop Bourax nee naa la Bourax benn si booteel la muy Diop Bourax Cheikh Wade. ndeysaan Bourax génn na waaye dawal nañu El Capo mu daw lu bëri ci 200 mètres bi dina métti nag actuellement dawal nañu El Capo Bourax moo nekk ci kanam deuxième position Bourax troisième position El Capo dawal nañu El Capo lu bëri mu ñëw. dawal nañu Bourax premier premier premier Bourax deuxième la numéro 10 mu rek troisième la troisième di El Кадыров. Премьер була. Премьер, брах. Премьер, брах. Вали Лалов. Латалмас. Ablaye Sarr dafa jubilé Ablaye Sarr dafa bi mu mel ne daa kontaan Burax nag li mu def nii du surprise parce que wane na ko dimanche bii passé ñu génn laa ilaha illallah bu raax doomu loofu an losu la sama xel dem na si maam gan jariya ba loofu losu darsa sur la ni rif na ba baan nasrullah Babacar Mar moom li muy caméraman amul fii laa ilaha illallah supporter yi yuuxu ah, mu mel ni Babacar Mar a ngi noonu di jël accident moom it démérité wul bu raax moo raw première sama xel dem na ci maam Ngagne Darya ba Medina ngi noonu bu baara seen daw nañu ba tee Bourax moo raw première deuxième bi repasse bi moom mooy Moubarak moom fasu mën a daw la dafa def si waat course de rentrée parce que dañ koo dencoon mu ñëwaat daw xel yi neex daw si kanam am deuxième ñu félicité bu baax a baax les frères Ndiouf kon daal dañ mën a jàpp daal Bourax moo raw première tax waat jërëjëf Lat Palmas Burak moo rob première waaye Moubarak moo nekk noonu Moubarak moo nekk noonu moo jël deuxième waaye kaaxani moo jël première mooy Burak mi ngi noonu di dugg ndeysaan cey